toppaluwaat ak yéen comme ni leen koy toppalee lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi ne leen ko toppal na nag koñ bi ñu nekk tey bu ñu ko waxee ñu ngi ginnaaw raay koñu presse mais dañu fi fekk kenn koo xam te ni buñ ko waxee kenn dootu ko présenté démb mu def benn vidéo boo xam ne dafa viral ci internet bi buñ ko waxee muy Marème Naar coow li bari trop Marème maa ngi la ziar. maa la delloo ziar bu baax bilaay ci loo ne. maa ngi nii rek comme noonu yow kenn du la <laughs> mais démb ni nga ñëwee arène national démb. waaw presse ko waral njool mi loolu dellu ma si ginnaaw de day mbolli rek nee naa la. waaw ah? yow day zembere rek. day mbolli zembere di dem rek suñu njool mi. waaw ah. kii day dem ngeen di ko téye xam nga ko. booy mu ndaw waxoon naa ne ko avant lamb ji commencé. loo leen wax naa benn jooy lañ koy jooy. Ah? te noonu la demee lamb lamb ji ñu yàq noos. ñu ñëw feesal stade bi dagg ticket mooy loolu bëre bëre bi daan daan bi ambiance bi ñoo ko moom ñoo ko fa am yow doomu ginnaaw raay doo xool. mais mais tey bu ni nga ñëwee biir arène nationale wàcc njóog xam nga. def say waaw maa nga fa am lépp xale koy def. lépp xale koy def mooy ni tool nga fa day daw rek di zembere rek loolu day dara yow xam nga presse yow. loolu laa cawoo mais bu bi nga ñëwee nag. sama xel day bu ndaw laa yor. confiance man la dama sama xel day dal bool bu ndaw dong laa yor. ay mbolli di dem rek. waaw coow li bari Marième nii kay lu waay wax baax na dawul sama yaram man njool mi rek a ma ñor. wax. dawul sama yaram maa ngi dégg lu ne mais ñu xamul xamul ñoom ñu xam-xam nañ mais man kii moo ma jaral lu ne. waaw moo la jaral lan mbala laag mbes dee. too xool ay ah, dem rek. ma tuddee grand dëkk nga ne moo la jaral. besde mbelli mbere laa besde day ñokkale rek. mais bu tiitoo bi suuf soufflé. lu may tiit ma ànd ak booy bu ndaw xale bi ñeme di ko liggéey chaque jour di liggéey doxul ba rab fekkoo ko si benn mbir taxawaaloo fekk toog liggéey yeewu entraîné la xam kooku day ànd moom di tiit. ñun duñ tiit de fii lañ dëkk yow day daw rek soo ko xippee <laughs> am ay nangam nangam. waaw dama la tiit bi soufflé mais mais mais li mu maye ci bi. léegi ba mu bëre lu neex. li may kii mooy yow doo ko bàyyi yow kii day ñebe kii lu ñu yaakaaroon a ñoom lañu ñu yaakaaroon moo amul dañoo foogoon booy bi day ñëw di dellu ginnaaw booy bi daa ñëw song si ko ñëw bëre fa lu neex nekk xale bu ndaw ñëw mujjee ñëw yëngal réew mi àdduna bëgg ko gaan ñaanal leen ñu waaye ñu gën a jëm ca kanam waaye da ngeen jàppale xoolal ñu si millions yi lañ bëgg dañ ko war a dooleel waa ginnaaw raay nañ ko dooleel génn yëkkati xaalis jox ñu mais gan presse li muy génne si réew mi booy mais nag Dalifort bari na waga ma dem dañuy gisuñu dara nee naa la gisuñu dara dañuy xaar li ma leen waxoon rek dañuy xaar barki yàlla. dama gis yu jigéen yu bari yu dagg seen ñooñu dañuy pas wala déggoo olof yow dañuy xaar kii day dem kenn du ko téye. bilaay walaay wa kii du fuusa du borobara du ràcce pucca di mbaasa jee doo xool adversaire eh, kii xoolal kii déggoo ma de kii xool soxlaatul ay fuusaay ay mbëri nga xam daa bëgg ñii dañoo bëgg tur si ñoom man bër boobu barki Seydina Muhammad démb laa koy door a dégg xaw ma ko démb ngay doog a dégg Oligans man laa man Marème Naar démb laa koy door gis loolu la romb laa door a dégg door gis xam nga kii lan laa bëgg ñu jox ko si mbëri mag yi mbëri mag yi laa bëgg ñu jox ko ñu lekk si bi kii day feesal instant dañ ko a dooleel. boo ko doon jox gars yi nañ borom soow mi. borom soow mi da waa am am na sàngara ak suus. ginnaaw raay lépp fii la baax. yëmbal ay ma ne la ginnaaw raay lépp fii la baax. ginnaaw raay am na Baay Faal am na Yaay Faal doo xippi xool xanaa. jàmbaar yaay fi man Yaay Faal laa doo ma laajte c'est mon naaru prince yow. xam nga ma yow. day ñokkale rek. bilaay yow yàgg nañu dem voilà. ah dem mais yëmbal a bari waga dañuy xaar yëmbal dañuy pas waa ginnaaw raay bu ñu yëngatoo kan mooy yëngal kenn renaa la lan wax ragal du jéggi raay bu naree jéggi raay ku muy àndal. Ah. ragal bu naree jéggi raay ànd doomu ginnaaw kan ñu ñoo ko fa am wala. day zembare rek ah day mboole rek yaw bilaay waay. mais mais ma ma ñëwaat ci kiwisaar yi ngeen di sol yii yii yàlla yii. dafa tàng. waa capitaine ngi noonu. xam dana ngi nii capitaine ngi nii day mboole rek. xam dana ngi nii capitaine bu jigéen bi. ma xool lañ dëkk maa ngi nii. tos day eh, man la daara bu peres capitaine bu jigéen baa ngi nii man lañ ko takkal. day xew yi ngeen xewal yi mooy lan la. Eh, eh, ñun kii mooy sunu yaakaar kii lañ am ci àdduna ku yor sa mbër teel kii Baay Faal la doxul doxul naanu sàngara toppul xale yi jigéen ñi ah. kii xam lan la xam entraînement reer tëdd xam nga lan lañ koy ñaanal mu indi roi des arènes bi biir Pikine moom kat da koy am wala xale bi ñoom ñu indi saat mais booy parcelles yi la la ndaana ni ma ci waga yooyu bàyyi ñu xel la la la eh xala la def yow xam nga am njool mi yow njool mi xam nga ko xam nga kii wala lañu def. way parcelle yi laa man la ñëppay pas. gémeur yi xaar. dañuy ñu xel kenn. gémeur yi laa la bàyyi ñu xel kenn. talfa gémeur bàyyi ñu xel kenn. nga naam ay kii day romb ñooñu ay géeméer wala géemaat moo dàq a géem ñëpp ki da géem ba géem sa waa koñ géem sa waa kër géem sa famille kii moo dàq a géem ñëpp nga naam ay géeméer yoo xipp xool yow ba géem géem amul ñun ba géem géem bariwul kon tey lañu am tur ñun loolu dara ñun day daw rek day zembere rek man la njool mi da koy jëli ji booy bu ndaw la daa kenn du ko teel la mooy problème bi saxaase rek. mais mais yi gars yi def dagg dugal ko ci ti TikTok bi ñu bari nee nañ Marème dem bi mi ñëw nekkul. ak sama bakkanu doom ba may ñëw estaat dara topp ma def ma dara fu ñaaw waaw nañ wax ju bon wax ju bon. garaaw man loolu daw sama yaram ba ma juddoo ba tey maa ngi dégg wax yàqul sama ra presse moo ma jaral loolu lépp ñu wax daw sama yaram suusuma ànduma kuy suus xaw ma luy suus fekkee ma suus kuy suus amooy suus koo xool wax ju bon wax ju bon la rek xool daw sama yaram kii lu ko xoolal lu ma waay wax si moom bëgg naa dañ ma wax lu ne seen wërsëg la aw ma seen jot lu waay wax man du ma sax seetaan TikTok xam la laa si am dugal sama vidéo romb kon ku siy wax yaa ma bàyyi xel mais man bàyyi ma la xel ah man kii rek laay topp topp ma kenn lu waay wax si lu bon jërëjëf maa la ko may man Marème Nar boo xamul xamul mais ñu xam-xam nañ fii laa doo fii laa yoroo fii lañ ma xamee ma bonee xam nañ mais ku ma xamul boo ma yàqee ay ree nga may def. ay zembera rek. mais est-ce que dagg sa yaram Marème léeg-léeg. ñu ne dagg fépp toog si tànk yi wàcc. dof ah. xanaa dama dof naa daa volé. ne la ma volé waaw ne la ba léegi maa ngi volé kon. volé xanaa na man naanu ma tuxuma sàcc ma fenn ma ànduwaat ku bon. doo xool man ay Baye Fall laay fréquenté ay nante mais nii mais lii xeetu lii moom lan la. waaw xeetu la nga koy nangu rek mën ko def ko wala boog. nee naa la xale def de moo du ko def man loolu yàlla ka def si man damaa judd ñu bëgg ma xale bu bëggaabul laa. dama bugg abul ku ma bugg ku ma bëggul da ngaa sonn man da may bëgg foos ndax nitu ñëpp laa mais mais nag dégg naa gars ma fi yaatu tasal bi dafa xeewi tas waa ñun duñu xeewi xam nga ko duñu xeewi man ma dem naa sax laay wax duma xeewi xam nga ko duma xeewi dama bokk ci réew mi ñun duñu xeewi ndax fu booy man dañoo xeewi foo romb dégg ma dem naar miyaa ma dem naar miyaa tout tasal loolu fu ñu fayee mais ñi neen si ànd da ngeen a xeexoon tàqalikoo gars yi ma miyaa mosuñoo xeex mosuñoo xamuñu xeex xamuñu sama deret la sama sang sama seex la sama waay la sama lépp la kooku jàmbaar si biir jàmbaari la xanaa déggoo ko yow géejawaay la dëkk daa ñëw ba ginnaaw raay supporté ñu jàppale presse. Ah, géejawaay la dëkk bokk si ñëw supporté def lépp jënd ti sa def lépp kon kooku moom lan la maa moom ay seex lañ. waaw loolu mooy yoon. waaye yow xam nga Saliou Karaw kii Tafa Karaw si jaar Kara Kara bi borom jàmbagan waaw yow rek la ñuy topp yow loolu tisatul baaxul. ñu ne daw làqu nga bari ne des fois nga gën daw làqu jàmm gën fa xarit aw fa àndandoo fan moo fa jàmm gën musuma faa dem lii fa am fii laa juddoo fii laa yoroo fii lañ ma xamee sël dong kase lu waay yor na ko téye yor sa dëkk waaye jàppal ku yor sa mbër téel njool mi rek laay topp waaw je suis moi c'est moi wax diggante Peres Talfa waaye ñun daw ñu dara lu ñu indi ñu bëree déggoo ma loo leen ñu indil ñu bëree loo leen indil ñu bëree mbooli mbooli doomu yaayu as lu mu tëggul baaxul ñun as baaba lañu la ñuy topp waaw suñu tëggkat bi loolu tëggul baaxul léegi nag tànn beer dina am xanaa dañuy def lom dañuy ambiance lépp dañuy defaat comme noonu ñoo moom fii dañuy cant dañuy tànn beer dañuy féewal xool yi chaque jour ñuy feete suñu victoire ñun bu dul dara sax dañuy noos toujours noos si nga ñu fekk ni nii nii bu dul dara fii la ñuy toog di noos yaa tout doo xool. nooy tàggoo. waaw waaw waaw waaw maa ngi tàggoo maa ngi nuyu ñëpp di baal ñëpp àq nag ñi ma tooñ ñi baal naa leen ñëpp ñi ma tooñ man ñi ma tooñ baal naa leen ñëpp. barke sëñ Fallou wax ko yow waaw waaw suñu jabaate jabaate capitaine bi su ma ko tuddalee du ma gor. moominu yàlla bi sama njaago or bi papi waaye waaye bu ma limee damay juuma ah. ñi ñëpp dañuy jàppale Prince ñi ngay gis ni ñëpp barki Seydina Muhammad amul benn kenn ku ñëw diñu jàppale ñi ñuy biir ñooy jàppalante dañoo war a génn nag ñu nekk fii ñun tane ñi ñi dimbali ñu mais sàqu ñu loolu sax yàlla baax na ñun dañuy dem rek barki Seydina Muhammad ku ñu dimbali wu ba léegi kere boo ñu dimbalee ay reelo ñu def daw suñu yaram ñun dañuy dem rek kenn ñu téye puus mu dem puus mu demee